dale na jàmm ñoo ànd xëyër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii de la Soleil xëy ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye niki démb woon ci diwaan Touba ngir ci wàllum na njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye niki démb ca Touba ci cérémonie bi daat nay jaajëfal bu baax a baax félicité Touba ci kanam ci taxawaay bi nga xam ne amee nañu ko rawatina ci lu jëm ci wàllum jëmbatub garab moom njiitu réew mi daat nay wax ne Touba ci kanam référence la maanaam exemple la te woonam mbooleem gox yi nekk ci Sénégal ngir ñu roy ci Touba ci kanam rawatina ci lu jëm ci jëmbatum garab moom Bassirou jamono ci li mu bëgg a ki yoonu Mouride daan wax ne campagne nationale bi ñu jagleel wàllum jëmbatub garab ci réew mi ak ndorte li ñu ko doole ci diwaanu Touba loolee daan nay firndeelu gouvernement bu yees bi seen taxawaay ci diine yéen kay gi di 24 heures njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye niki démb ci Touba daat nay dalal xeelu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci màggal gi nga xam ne moom la ñu ma la ndax a jël ba lépp mu cayib na ko sama xel dal na ndax seen yitte yépp ci liggéey la ba kay gi de bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum redressement fiscal ak nguur gu bees gi nga xam ne lépp loo xam ne jëm na ci wàllum impôt café wuñu ko réewee wuñu ko ndax am na benn société société bu tudd White boobee nag defal nañ leen ab redressement fiscal boo xam ne toll na ci 41 milliards gi nee na ci lu bi dafa dem nag fa mbaxana doone benn ndax redressement fiscal bi ñu ko andil mu toll ci 40 ak yu fegg nangu ko fay loolee moo tax mu jël mbir mi yóbbu ko seen kanamu tribunal ngir tribunal mën leen a atte gi daal nee na en lemba de sall société Woodside bi nga xam ne ay doomu réew Australie ñoo nekk fii ci Sénégal projet Sangomar bi la ñu leen andil ab redressement fiscal boo xam ne 41 la ak yu fegg yéene kaay gi dalee fa premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu wax ci tojaange yi Macky ak ñi mu àndal def ci réew mi la Macky Sall bàyyi ci réew mi réew mu nasax la ñu fi fekk waaye nag yàggatul dara Sénégal yi danañu xam lépp maanaam dëgg gi ak Macky Sall li mu def ci réew mi loolee yàggatul du ump benn Sénégalais ndax lépp danañu leen ko waxa ndax bëri na loo xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal def nañu koy askan wi loolu lépp danañu ko feeñal yéenekaay gi de Libération moom Ousmane Sonko daan nay wax ne du bànneexu ci alalu réew mi maanaam daal du amee xaalis ci xaalisu askanu Sénégal loolee tamit duñu ko nangu ci biir gouvernement bi maanaam nekk ci biir gouvernement bi di am xaalis ci askan wi loolee moom jeex na ci mi te ñi nga xam na ñooy ndaw ñi na leen leer na ñoom la ñuy liggéeya la waaye nag ndaw ñi nañu am patience nañu bañ a yàkkamte nañu ànd ak ak dal ndax Sénégal dina développé Sénégal dina neex Ousmane Sonko nee na ndaw ñi ñi nga xam ne ay yàqkat lañ noonu réew mi ñooñee bu leen leen dégloo yéenekaay kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkate woon na ko fan yi ñu génn jëmale ko ci école yi nga xam ne ñooy tere xale yi muuru ngir ñu jàngee ci yooyu école Ousmane Sonko dafa waxoon ne maanaam école yi koy tere nañu ko bàyyi ndax loolee jeex na ci réew mi dootu ñu nangooti benn école nekk ci réew mi di tere xale yi nga xam ne bëgg nañoo muuro waaye nag kàddu Ousmane Sonko yooyee jamono ji jur na ak piccoo ak mbaaloo ci réew mi ndax abbé André Latir Ndiaye yëkkate na ci ay kàddu dal ci kaw Ousmane Sonko ba xolom daan na koy wax ne ko booy wax da ngay tey wax ji ngay wax dafa war a ànd ak diplomatie politique du arrogance maanaam du bew te nag jikko ji nga xam ne moom nga yoroon ciw bi ngay kujje jikko jooju nag nga war a teg ci suufa génn ci wàllum gatsa gatsa dañu leen a fal ngir na ngeen saafara jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal am nañu ko ci lu jëm ci wàllum dund gi ak ñàkk gi am ci réew mi ngeen saafara ko ak xale yi nga xam ne amuñu liggéey loole la ñu leen sant sant ñu leen leneen moom André Abdallah Ndiaye yemul foofu ndax daat nay wax ne nit dafa am nu mu war a mel ngir nag mën a taxaw ne diina lay xeexal waaye nag yenn làmmiñ yi yenn loxo yi yenn pantalon yi yeyowuñu taxaw ne dañuy défendre diine yéen ñu xibaar nañu péccoo ak mbaloo maanaam polémique bi nga xam ne amoon na ci Sénégal ci lu jëm ci école yi xale yi dañuy muuru ak duñu muuru maanaam péccoo ak mbaloo googee Ousmane Sonko sulliwaat na ko ci réew mi yéen kaay gi de na kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkate na ko wax ne dootuñu nangooti école yenn yi di tere xale ñu muuru ak église ñenn si ñoom génn daal di koy tonton ndax loolee mënut a ay benk ñenke ci lu jëm ci cohésion sociale bi maanaam jàmmoo gi ñu jàmmoo ci sunu biira diggante jullit yi ak catholique yi yéen kaay gi ministre bi ñu dénk wàllum njàng ma diggu doomu mi daan wax ne Abbé André Latyr Ndiaye dégluwul bu baax a baax Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko li mu wax constitution bi moo ko wax te constitution bi mu féete kaw règlement intérieur ub école imam bi nag dafa yàkkamti André Latyr Ndiaye ku yàkkamti la ndax dégluwul bu baax Ousmane Sonko te abbé du yàkkamti ab abbé dafa rafetal waaye kaddu yi nga xam ne abbé bi yëkkati na ko du kaddu yoo xam ne kaddu yi ñu rafetlu la Ousmane Sonko musuta ngaañu église bi yéen kay gi di faire dégg ñu ndax nee na abbé bi ku indiscipline la maanaam ku réew la ndax kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko tegu ko fenn ku indiscipline la mal éduqué Ousmane Sonko musu da déclaré guerre catholique yi loolee kàddu yi imam Bamba Sall la ma ngi ci journal bi di Verdi News yéen kay gi délibération ak la xëy du ñu xibaar naan ñu Kër Lamine ca Tiwaawoon lu tey waar moo fa xew ndax lakk gu metti moo fa am ci benn daara ba am lu toll ci juróom ñoo xam na ñoo fa ñàkk seen bakkan yéen kay gi nee na sëriñu daara ba jamono ji maanaam teg nañu ko loxo yéen kay gi di réew mi ku xëy yu bu ñu ca dëkkub réew ma ca njaga ñaaw